ngeen jot suñu vidéo nag moo ne dugal tontu la tontuwaale daanaka rek ñi may laaj ñëpp nag man ci sama jëmmi bopp nag am naa droit nag li ma gëm ne moom laa gëm li ma gëmul ma ne góoma ko man góoma na fatu bi sëñ bi weddu ma ngëm-ngëmu kenn nag ku ne sañ ngaa gëm ne mooma waaye man ci moo ko ba càmbar ko jàngataat ko bu baax a baax ñaar laa ci am yoo xam ne mën naa caa sukkandiku mu ndur ma sëñ bi waaye amaan naa ci fukk yuy tax ma weddi ni du sëñ bi loolu tax na daal bu dee dëgg rek man góob ma ne sëñ bi waaw ñu may indil nag loolu tax ma ko waaye ba fii may wax ak yow daal nangu ma ne sëñ bi waaw daal laa ci ne moom ku am nga droit nag. nga seet la la ca doy nga ne sëñ bi ndax sëñ bi moom jullit yëpp ko bokk murit yëpp ko bokk. Ah, man de sëñ bi daa mel ne fas bi daal wax dëgg yàlla man jàpp naa ne jàpp naa ne sëñ bi la ba keroog may gis lu gën a leer loolu itam ma bàyyi li ma jàppoon ndax li tax ma jàpp ne sëñ bi la mooy bi ci jiitu mooy ñun ñëpp maase nañ gëm ne sëñ bi am na foto waaw moom gëm nañu gëm nañu sëñ bi am foto ba benn foto bii nga xam ne moom lañ gisoon ñëpp nangu nañu sëñ bi la kon sëñ bi mën a am foto moom lu yéen maanaa la ndax am na beneen photo wala amu ko loolu itam lu mën a nekk la ndax gisuñu fenn fa sëñ bi ne benn photo la am gisuñu kenn ci mag ñi ko wax ne sëñ bi ne benn photo bii dong la mas a am te tubaab yi yàgg nañoo ak moom lool te jamono yooyu photo amoon na ba vidéo sax amoon na te tubaab yi ñu fonk archive lañ kon sëñ bi am beneen photo moom lu yenu maanaa la lu mën a nekk la maanaam kon buñ buñ bañ a jàpp rek ne sëñ bi benn photo la am loolu moom te ku ko jàppee tegoo ko fenn moo tax ma jàpp ne beneen photo am génn lu yenu ñaareel bi mooy foto bi histoire bi mu dëppool ndax ke ko génne dafa wax ne le 11 mars 1918 bi ñuy teg xeer wi njaareem loolu itam dafa dëpp foto bi dafa dëppoo ak événement bi ndax boo demee ci sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana dafa wax ne bi 1918 bisub altine te boo xoolee la 11 mars gii borom photo bi wax moo bisub altine boobu ñoo tolloo tegu xeer tamit la sëñ bi doon def ci photo bi nii gis nga ko dafa teg xeer wi julli ñaar raaka daa di daa di daa di doo am suñ Mahamad Lam Diaw loolu la ko waxee nee na bi mu génnee ci nee na bisub dimanche lañ gas lañ gas pànk kam bi njëriñ yi kambi ay kambi yu mag a mag ci jumaa ji euh, sëñ bi bi ci àll nañ daa dugg ci biir pax mi ak suñ mataan bindaloo ak bagage ak ñeneen loolu nag day day kon pax mu yaatoo yaatu la woon te loolu niru na ko ndax foto boo xoolee foto bi fi sëñ bi jullee doon te leerul bu baax di nga gis ci bit di seetaan day mel ne tiim sëñ bi kon fi sëñ bi nekk daa mel ne moo a xóot ñoom fi nekk ñaare bi tam tamit jëmmi photo bi ci boppam moom boo ko xoolee xool xar bi ak taxawaay sëñ bi ak mbub mi mu sol nga xam ne mbub mu mel noonu la baaxoo sol mbub moo xam ne day day xaw a gàtt ñaare bi itam mbub mi amul poos bi ci toppaay itam mooy mbub mi boo xoolee loxo yi daa gën a gudd ma loxo yi gudd ba loxo yi du feeñ boo xoolee bi mu jullee ba jug di dem da ngay gis ne loxo gis te loolu itam photo bu njëkk loolu nemmeekoon nañ ne loxo bi doo ko gis suñ mosuwaag yi rawaay bi daara tegale ba léeg-léeg nga gis ne mu yor joo xam ne ëpp jëmmam ndax neen daana sol dara sax jël ab jàllaa bi teg ko ci xeeti màndarga yooyu daal boo ko jëlee xool tamit ñi ne ci wetu sëñ bi ni nga xam ne noonu lañ ko war maale ñàkk sol daal la ñàkk sol mbaxana man xawma ci histoire ci jamonoy Sëñ Tuubaa ak la ko jiitu koo xam ne say taalibe daan nañ la war maale jege la bañ a sol mbaxana wala a sol daal amutoon xamuñ ko woon ci ak ñi leen jiitu ci jamono jiitam itam xawma woon benn sëriñ bu am kattanu tegu xeer abay tabax ci jamono ci Sénégal maa benn sëriñ bu amoon kattanu tabax dara ci 1918 ci réew xam ne amoon na kàttanu mën a tabax bu ko defee nag ñi nga xam ne dañ koy wedde di wax ne nit ñi niñ jege woon sëñ bi dañ ko wegoon loolu moom am na la ko mën a dindi ndax li ko mën a dindi mooy bis bii da nga xam ne maanaam 1918 euh, la te 1918 fekkoon na sëñ bi jafe fekkoon na mu naqaree gis fekkoon na nit ñi daan ko namm loolu àggoon ci nit ñi sax mas nañoo buuxante ba dal ci kawam ba dagg aw dàllam ba dagg ab baaraamam ci lañ ko defaloon bareer yooyu ak kees yi ci kon nit ñi dañaan xër ci gis ko rawatina mu génn këru njëriñ ñëw ci penc bi ñëpp daan génn ko seetaan te ginnaaw événement la tegu xeer xam nga ne sëñ bi ni mu bëggee jàkk ak jàkk ji ni wax ne moom la ko borom maye mu koy fàttali jàkk jam eh, yàqoon ca Gabon eh, xam nga ne bisu boo xam ne du bokk moom dong faaw mag ña fa nekkoon ak ña a fekk ñëpp dana ñëw fekk si nga gis ne ci wetam day mel ñu ñëwoon ngir fekk si tegu xeer wala ndax bisu mbégte boobu nga gis ñe ñi ci ñoo yegg si ñoo taxaw ci moom kon jege giñ ko jege yooyu moom loolu moom du cëslaay tubaab bii nga gis ci wetam itam mu mel ne ab cartable gàddu ko loolu yéen na maanaa ndax sëñ Mouhamadou Lamine Dagana dafa ne ci bis bii lañ tàmbali liggéey bi te liggéey bi nga gis tubaab bi li ñu bokk ne cartable day ay panaak yëf kon boo seetantalee photo bi daal ci niru gim niru sëñ bi ak jëmm ci ak événement bi mu tolloon ak itam jàpp ne lu mën a nekk la wax dëgg a man samay xel day nangu ne kii mën naa doon sëñ bi ci euh, fi ko soo nax di gisee woon mais ki ko ki ko ki ko fa dugal moom sax du du du ab euh, sénégalais day def affaire aar ay photo yu bëri la jëli di ko recherché di ko dugal ci affaire sitam bi nee na photo bi ñi ko ñi ko yor ñi ko jënd yor ko moom ko ñu ngi tudd mu ngi tudd Alan Roberts ak jabar ji Polly te ñu ngi ko ñu ko jëlee ci ci benn auction auction soo ko déggee mooy foo xam ne dañ fay dem di jaay ay mbir maanaam bu ñu koy jaay ku ku ëppale lu mu ci fay ci xaalis rek loolu lañ koy jox maanaam mu ne photo bi photo photo bu bu wóor la bu dëggu naxam ndax euh, bii mooy ñaareelu photo bu nga xam ne moom la ku tedd ki euh, accepté daal maanaam moo moo mooy ñaareelu photo bu gën a siiw mu ne si si si si auction Belgique benn auction Belgique la mujjee woon foofu la ko alal boobu noonu ak jabar yi jëndee neen da ko dugal nag ah, ngir ah, fexe nu mu dellusiwaatee ba Touba waaw nee na soo demee ci benn website bu tudd camp foofu la ko auction ah, boobu la ko gars yi jëndee la ko ñaar ñoom jëndee lu yéeme yéeme yéeme parce que moom du Sénégalais mais xam na Serigne Touba xam na histoire Serigne Touba mu ngi